waaw doorgal seen barab la dangeen def yoon yi alhamdulilah bokk Louga yëpp ñëpp ay jàmm alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah تنسى الباقي الحمد لله بارك الله الحمد لله الحمد لله الله يجعل باه باه الحمد لله الحمد لله الحمد لله بارك الله الحمد لله بارك الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله بارك الله الحمد لله Ndour Ndour Ndour Ndour. alhamdulilah. alhamdulilah. sant bu baax. alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah. naa tàbbi fi tàbbi mbégte rek. comme ni nga xam ne moom lañ ko daan de te it yéene ji nga xam ne moom moo yor ba ko bañ déggante téléphone it mm-hmm. wax nga ma lu kawe njort. loo xam ne it wax dëgg yàlla ah. lottoon naa ci ah. jottali ko sax mbokk taalibe yi nga xam ne moom la ñu àndal te ñu xam yéene ji nga xam ne moom nga am suñu diggante ñun eh, jaare ko ci ah. kóllëre te kóllëre goo xam ne lépp rek lislaam moo ko moo ko lal jaare ko ci suñu bunt sëñ Tuubaa ñu ngi lay ñaanal yàggal la fi lool ñu yàgg fee ñëw yàgg la fee fekk nga xam ne it mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom lañ àndal ak suñu bokk soxna yëpp barab bi moom suñ barab la comme ni nga ko waxee dañoo jàpp ne lépp lu fi taxaw ah, ku fi yenn ba ngoon rek ñun ñi ñun ñi ngay dimbali ndax boo nu woowoon ah, ni damaa bëgg nangam ñun ñi kenn ku ne am nga ci pas-pasu bàyyi li ngay def ñëw liggéey la ko ba ba ba moom kii ah, loolu moom yàlla rek lañ koy seede ñoo ngi feddali kóllëre gi bu baax a baax a baax jëme ko ci sëñ Tuubaa jëme ko ci seen waajur bu baax wax sëriñ Baara Ñang li nga xam ne nga nekk taw yàlla na borom yàggal la ci jotaay bi barke Sëriñ Tuubaa sa digganteeg sëñ Tuubaa moom xam nañ ko bu baax a baax ndax ku ko xamul dégg nga ko te daanaka li li dégg dégg-dégg yi di am yëpp yëpp lu waaye bañ ñu dégg ko bay bo nga bañ koo def lu waaye bañ ñu gis ko bay ngoo ba nga bañ koo jëf te ñu ngi dégg jëf ji ñu ngi gisit taxawaay bi loolu rek la ñu ànd nag waaw xam naa ni jamono joo xat lañ nekk waaye lii moom daa mënut a ñàkk suñu doxin ak suñu digganteeg yow ndax mu doon kóllëre goo xam ne mën nañoo jàpp ni ci sëñ Tuubaa la jege direct wéret jaar ci yow jëm fu ko fu ko soob rek te it ma jàpp ni fu mu àgg rek yow sa jëmm ju baax ji moom moo ko fay moom moo ko fay àggale ndax defal nga ñu lu kawe suñu njort mooy bàyyi sa yite yëpp ñëw suñu jëmm yu tedd yu xeebu yi nga xam ne daanaka wax dëgg yàlla jotaay boobu moom lu ñuy waxtaanee la ba tey loolu nag kawe na ci ñun lool te it koo bëggul doo gestu ay mbiram ah, koo yëgul doo ko seeti te loolu lépp bàyyi nga sa lépp ah, defal ñu ko daal ñi nga lay daal boo nu gisee ak boo nu gisu yëpp yéenay mbokki taalibe yi ëpp na mboolem asaka yi li ñu bëgg a def ndax loolu Sëñ Tuubaa rek lañ koy ngi feddali a baax la euh, sa jëmm ju tell ji nga defal ñu it kel la euh, suñ borom defoon ca malawa rek moo xam ne daanaka ak njabootam moom day fori ba mu ñëw rek xool leen ñoo ñëpp ñu rek waaw xamna xel na ñoom ñëpp ak mbolam ko ku sa xel nek ci mom aajo joo yene rek boo xolé xoolee aajo jooju dana faj loolu mom am nañ ci ak rafetum njort te yaqeen gogu lañu diggé ci kër gi nag tey duñ mas a rëccu dugg gi ñi dugg ba bañuy delu delluwaat ba bañu fi delu dellusiwaat duñ ko rëccu ci biir te duñ ko rëccu ci biir tay li yéme moy man luñ dugg rek buma la woowee wax la ko wax la ko téléphone fa nga tongo tok bo ci ñaanee suñu borom da koy safara kon nak nga saafaraan ñu ñi ñu ak yi ñu yëpp ndax lén lu ci nek rek xam nañ ci sëñ Tuubaa lañ ko lañ ko jé te ñu suñ degg digganteeg sëñ Tuubaa ñun mënuñu ci dara waaye mën ngeen ci dara kon lépp lu tag rek suñu digganteeg sëriñ bi tàggantel ñu ko ngir ñu jot ko ngir ñu mën ko ko jot ndax suñu yéene toll na noonu waaye mënuñu àgg ci ñoom waaye yéen ñi nga xam ne mën ngeen a àgg ci moom ñu ngi lay dimbali ñu ngi lay ñaan nga dimbali ñu ngir jëm bi sëñ nga àggale ñu suñu ci moom jaare ko nag suñu digganteeg sëriñ Sarif ñoo ngi baax waxtu xat la tum bu baax baax xol mm-hmm. bu baax bu baax mm-hmm. itam day ba seen pas-pas sëñ Tuubaa nangul leen waaw te may leen ak wér bu ngeen di liggéeyal sëriñ bi